صلاة النسي في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع لبس والسفر fan ak juróom ñet ci wéru safar di bis bi nga xamé ni Serigne Touba ci la deugmal lolé ni duppé natou wi Serigne Fallou gala ci la lañ ci àndal ci bëyitu bis bi. kon bëyitu bisu tey yi mooy xarajtu ji yow ma sabti samina azar li khidmatil muxtaari fi sahri safar. muy beuyit bu doy war ana lan la ci Serigne Touba nam ma wax fofu lolou bo ci xolé Serigne bi dafa wax ne bi mi génn dafa waxal bopam ne man tay génn naa xarajtu génn na newul génne nañ ma génn na la wax tay ci sama dëkk bi di Mbacke Bari ci bisub gaaw bi bisub gaaw bobu depo ak fukki fan ak juroom ñatt ci wéru safar seigne touba nee lan moma taxa génn lan moma taxa génn lool moy li am importance li tax ma génn moy lan liggéeyali mustafa sallallahu alayhi wa sallam li khidmatil muxtaar ngir liggéeyal ko ñu tànn ka ci wéru safar kon tegte la ne bisub gaaw la xamee nañ ci ne fukki fan ak juróom-ñett la xamee nañ ci it ne liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko tax a génn xamee nañ ci it ne weeru safar la kon engagement bi mu jël moom bokkut ak li nga xam ne la tubaab yi xalaat ne moo am moom nee damay génn ngir dem liggéeyali Moustapha liggéeyal ko nag ci barab bu wéet liggéey boo xam daf ko séddale woon ci ñaari xaaj bu njëkk bi mooy dama koy tagg ci benn xaaj bi te may julli ci moom ci benn xaaj bi te fekk na booba sun borom subhanahu moo ko digle muy jaamu yàlla gu mag yaa ayuha allazina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla waxut mën na koo wax waaye waxut loolu yaa ayuha allazina yéen ñi nga xam ne nangu ngeen ne yàllaa leen bind moom leen ngeen gëm loolu yéen ñooñu sallu alayhi na ngeen julli ci moom Moustapha alayhi salaatu wa kon loolu moo tax sëriñ Touba bi mu ne ñokket daa jóg ngir liggéey li Moustapha sallallahu alayhi wa salaam moo tax Serigne Touba ne liggéey bi dama ko seddale ci ñaari xaaj benn bi mooy bi nga xam ne yàllaa ma ko diggal ma ànd ko ak moom ànd ko ak malaayka yi salaatu sitta boobu juróom benn weer laa koy def wane beneen juróom benn weer bi nga xam ne moo fukkeel ak ñaar at mi bi mat hi sitta dama koy tagg moom Moustapha. ndax daraja jim am ba yàlla ak malaaykaam yi du julli ci moom loolu daraja gënu koo rëy te ko sob sang def ndam lu rëy war nga koo tagg ba ñëpp xam ne tagg nga ko sëriñ Tuubaa bi mu waxalee boppam daal xarajtu yow ma sabti saamina azar li xidmatil muxtaari fi saari safar tukki bépp foofu la ko teg ngir liggéeye di Moustapha sallallahu alayhi wa sallam bayitu bis bi ba ëllëg ak jàmm ci Dakar Actu سفر حماني على ماني ما لبس واستفر